rawatina nag li ñu fi waxtaanee du jàmm comme ni ma ko waxee dafa am jamono joo xam ne ci biir at bi dañ lay laaj nga fay yow élève frais de dossier pour bokk pour def baccalauréat frais de dossier yooyu mu ngi toll ci onze mille cinq cent onze mille cinq cent mooy ñaari junni ak ñetti téeméer élève bu nekk nga nekk classe terminale boo buggee def baccalauréat war nga fay frais de dossiers onze mille cinq cent ñaari junni ak ñetti téeméer ñoom fay nañ seen onze mille cinq cent boo fayee loolu ci biir at bi da ngay jot message bu lay wax ne fay nga xëy na ñu jox la xëy na sa numéro ñoom dinañ si ñëwaat waaw message bi xëy na am na numéro euh, euh, yow candidat bi ak fi nga naree def xëy na peut-être. Euh, bac ak ñoom seen bo man bi ma defee bac yàgg na donc xamatuma trop ni muy demee donc da jot message ñoom seen naataango yi ñu bokkal classe seen classe toll ci ñeent fukk jot seeni message ñoom juróom-ñeent jotuñu message bi ñu jotulee message ñu interpellé ñi jiite école institut Lucie Leclerc bu Almati bi ñu leen interpellé ñu ne leen ah dafa yéex rek xam ngeen rek ay ay mbiru xarala ak ñoom seen message yi dina ñëw ñu toog gisuñu dara ñu ne noo xëy na dossiers yi moo jaxasoo moo réer ñu toog ñu ne boo am na ay papier ak ñoom seen mujjantel bi nag waa école bi ne leen xam ngeen lan la ci gàttal dañoo lekk xaalis bi waaw seen onze mille cinq cent yi ngeen déposé dañoo lekk xaalis bi yéen juróom-ñeent diw moo ko lekk ñoom dinañ ñëwaat ci diw boobu kan la ñun nag waa FRAPP diw moo ko lekk intéressé wuñu li ñu intéressé mooy diw boobu nga xam ne moo ko lekk école bi moo ko fa teg di ko fay donc diw moo ko lekk école bi na ko lijjanti waaye responsabilité école bi la yow école nooy amee directeur nooy amee surveillant général nooy amee yeneen poste ci école élèves yi di fay seen xaalis pour def baccalauréat kenn ci ñi ngi fa teg lekk xaalis bi ba déposé wuñu ko office du bac déposé wuñu ko ci état du Sénégal donc ça veut dire que état du Sénégal moom xamul élèves yi pour ñii di def baccalauréat ñu jàpp nag ne loolu du dëgg du yoon ñu jàpp nag ne loolu lu garaaw garaaw la ñu naan déet ñeent fukki élèves yépp fay ku ci nekk ñaari téeméer xam ngeen examen baccalauréat am na lu ñuy woowee matière facultative mooy matière yoo xam ne du forcé waaye yow élève da lay neex nga def ko lan mooy intérêt matière facultative mooy point boo am te mu dépassé dix dañ la koy yokkal loolu mooy intérêt matière facultative maanaam boo defee dessin nga am douze deux points de plus yi en tout cas suñu jamono dañ ko doon yokk ñoom dinañ wax ndax ba léegi loolu moo am boo defee musique d'accord boo amee quinze dañuy jël cinq cinq points yi yokkal la ko ci matière forcée yi. ñoom ñeent fukki élèves ñu fay ku ci nekk ñaari téeméer pour def matière facultative ci ñeent fukki élèves yi kenn rek moo ci def matière facultative muy doomu directeur maanaam ñoom dañoo lekk seen ñaari junni ak ñetti téeméer frais de dossier baccalauréat ñu naan déet ñu fay ñu lekk seen ñaari téeméer. waaye seen yeneen naataango yi nga xam ne dañoo lekk seen ñaari téeméer ñoom au moins yàlla def na kenn lekkul seen ñaari junni ak ñetti téeméer xaw ma ndax yaa ngi dégg bu baax fi may waxee si ñeent fukki élèves yi kenn rek moo si def matière facultative muy doomu directeur école bi donc ça veut dire que yi dañoo lekk ku ci nekk sa ñaar téeméer mais 39 yi fanweer maanaam 30 ñoom au moins kenn lekkul woon seen onze mille cinq cent ñoom dañoo lekk seen onze mille cinq cent ñu naan déet ñu lekk seen mille francs muy kon ñoom dañoo lekk kon seen ñaata douze mille cent donc mu ngi nii kon munuñu def bac defuñu bac ci ay élèves yoo xam ne dañoo jàng octobre ba mois de mai waaye xam nga bu ma waxee douze mille cinq cent ah ngeen ne douze mille cinq cent graawul eh douze mille cinq cent graaw na non non du problème xaalis douze mille cinq cent graaw na lu tax douze mille cinq cent graaw na parce que ñoom le fait que defuñu bac dafa mel ni li ñu fay octobre ba mois de mai amul benn njëriñ kon tey mënoon nañ toog seen kër. bañ a fay xaar déwén frais d'inscription ku ci nekk fay na ko cent mille francs mensualité octobre ba mois de mai ku ci nekk fay na quarante mille par mois loolu mooy lan depuis mois de janvier école bi xamoon na ne lekk nañ ñoom seen xaalis depuis mois de janvier ñu continuer fay quarante mille février quarante mille mars quarante mille avril quarante mille mais loolu yëpp boo ko boolantee loolu yëpp boo ko boolantee mu ngi toll ci trois millions neuf cent vingt deux mille cinq cent francs li ma jël mooy ku ci nekk c'est ñoom neuf seen onze mille cinq cent ku ci nekk mille francs nga boole ci ku ci nekk cent mille francs de frais d'inscription fois neuf ku ci nekk quarante mille francs octobre ba mois de mai multiplier ko par neuf loolu moo joxe trois millions neuf cent vingt deux mille cinq cent francs euh, peut-être que yokk naa si euh, mille francs yeneen élèves yi nga xam ne ñoom def nañ bac parce que lekkuñu en fait euh, seen onze mille cinq cent donc ça veut dire que école bi ñuy woowee institut Lucie Leclerc bu Almadi lekk na trois millions neuf cent vingt deux mille cinq cent francs wu neuf élèves muy déjà problème mu xaalis te bi école bi waxee ne ñun ñoo lekk seen xaalis fayuñu leen seen xaalis delloowuñu leen seen xaalis baaluwuñu leen àq. déedéet école bi ñëwul ne ah diw mi nga xam ne ñun ñoo ko nommé ñoo ko tabb mu occupé poste sàngam ci école bi donc moom moo war a ñëw laajte seen xaalis moom ngeen war a jox seen xaalis wala bu ngeen ko joxulee itam moom moo ko war a dem déposer diw boobu lekk seen xaalis te ñun ñu tabb ko donc mënul nekk responsabilité personnelle. am na responsabilité individuelle waaye responsabilité également de l'école école bi baaluwul ak école bi excusé wul école bi jéemul trouver solution ba pare di leen di menacer di leen di xoqatal neleen fu leen neex dem leen du mujj fenn mbokk yi du mujj fenn moo war a jeex ci réew mi nga nekk liggéeykat ñu noot la du mujj fenn nga nekk béykat ñu sàcc sa suuf du mujj fenn nga nekk élève war a def baccalauréat nga ànd ak say naatango octobre ba mois de mai frais d'inscription cent mille weer bu nekk nga fay juróom-ñetti junni mooy quarante mille ñu naan déet nga joxe ñaari junni ak ñetti téeméer ñu naan déet nga joxe ñaari téeméer matière euh, matière facultative ngir mujjantel bi ñu ne la naxee mbaa na nga xaar ba déwén seet leen rek lu toll ni élève nga jàng at bi yépp ak sa ñeent fukki naatango nga war a def bac bac jot defoo bac say morom di def bac seet leen ko ci xale ci suñuy doom ci suñuy rakk kel sentiment lan moo war a nekk ñoom seen bopp ak xale ni mu mel lu sa moroom am bëgg nga am lu ko weesu walla minimum la même chose sa naataango yi nga duggandoo école dans quelques jour ñu ne ñu ngi arrosage ndax ndaxte am nañ bac c'est l'occasion d'ailleurs de souhaiter bonne chance à tous les bacheliers du Sénégal fii ak ay fan say naataango ñoo lay invité naan dañuy arrosage dañuy fêter ñoom seen baccalauréat bi ñu am fekk na yow dañ la xañ baccalauréat moo tax ñun waa FRAPP ñu ñëw ne ah lii école bi ñuy woowee institut Sainte-Lucie wax doy na waar def doy na waar du dëgg du yoon waaye ñun du ñu yem rekk ci école institut Lucie Leclerc dañuy naan école nekkul bi biti ko mag école nekkul ku jóg rek nga taxawal sa boutique boobu ana état du Sénégal boobu ana gouvernement du Sénégal boobu gouvernement du Sénégal mu ngi dàqe waa PASTEF boobu gouvernement du Sénégal mu ngi jël gouvernement bi yëpp ne acca cité kër góor gi mais déedéet suñu doom yi nag suñu rakk yi nag suñu jarbaat yi nag. mais moyen yi ñuy jël di tongali waa Pastef di tongali Ousmane Sonko di yóbbu cité kër góor gi mais moyen yooyu nañ ko jël itam ngir suñuy doom suñuy jarbaat suñuy rakk yi nekk ci école yi bu ñu bañ leen nax ñu bañ leen noot lii kon moo ñu fi indi damay fàttali ne damay fàttali ne mbir mi problème bu xaalis la ndaxte nee naa leen 3 euh, millions 922 mille 500 xaalis bu bëri bari la ah 3 millions di kuñ ko si jox nga commencé sa benn business nga ubbi sa entreprise 3 millions 922 mille 500 kuñ ko jox nga dem aji màkk nga dem aji rom donc 322 mille 500 du xaalis bu ndaw xaalis boobu yépp na ko école. institut Lucie Leclerc fay élèves yi donc problème xaalis mu ngi ci problème mu war a def bac defoo bac dafa mel ni tu as perdu une année scolaire c'est extrêmement grave ñu ngi koy ñaaw ñaawlu ba fu lu yem waaye beneen bi mooy foofu lay daanelee dafa am ci sañ-sañ yi ci àq ak yelleef yi lu ñuy woowee le droit à l'éducation sañ-sañ jàng dafa mel ni c'est ñoom seen droit à l'éducation la ñu salfaañe or droit à l'éducation article 8 ak article 21 de la constitution du Sénégal day wax ci droit à l'éducation constitution bu Sénégal bi nga xam ne moo wax ci article 27 nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs constitution boobu ci article huit ak ci article vingt mooy wax ci droit à l'éducation seen droit à l'éducation boobu la ñu salfaañe article vingt six déclaration universelle des droits de l'homme bu 1948 mooy wax tout personne a droit à l'éducation donc ñoom seen droit à l'éducation la ñu salfaañee c'est extrêmement grave c'est pour ça que l'État du Sénégal est interpellé c'est pourquoi gouvernement bu Sénégal warul toog seetaan lii ministère de l'éducation nationale gouvernement bu Sénégal État bu Sénégal war na dem interpeller institut école institut Lucie Leclerc pour mu wax leen lan moo tax ñuy noot élèves Sainte-Lucie di lekk seen xaalis di leen di gëmloo ne dinañ def bac ñu lekk ñoom seen xaalis élèves yi nag porté nañ plainte élèves yi porté nañ plainte depuis le 30 mai 30 mai fanweeri fan ci weeru mai la ñu déposé seen plainte 30 mai 30 juin 5 juillet xam ngeen ëpp na weer depuis boobu dossier bi avancé wul non depuis boobu dossier bi avancé wul waaw ndax lan parce que ñu ngi tudd Rougui ñu ngi tudd mais Xarjata ñu ngi tudd Adja ñu ngi tudd Saabali tudd ñu Adji Sarr. Euh, Je m'appelle Fendaman Sabali. Je partie des neuf qui ne feront pas le bac cette année. moi, je suis élève dans l'école à l'Institut Lucie Leclerc depuis le mois de novembre. Et depuis le début, tout se passait bien jusqu'en fin mai. Les gens ils commençaient à recevoir le numéro. Nous aussi, on a commencé à réclamer. Ils ont dit non, c'est un problème de logiciel à l'office des bac. Il qui reçoivent pas le message et tout. Donc, ils nous ont dit que peu importe ce qui va se passer, eux, ils vont afficher la liste. Et là, tous les jours, on vient, on demande, on demande, on demande. Et le gars, il nous donne une version tout le temps différente de la précédente. Et le gars qui était chargé de déposer les trucs là, il nous a avoué après que, que lui, il n'avait pas reçu les timbres des frais de dossier. Que c'est pour ça que là-bas, à l'office, on a rejeté nos dossiers et tout. Mais avant ça, le surveillant général, que c'est parce copie d'extrait de naissance dans les papiers. Après, au fur et à mesure du temps, ils ont commencé à changer, à changer, à changer. Puis un jour, le directeur, il est intervenu et il nous a dit que lui, il n'était pas au courant de tout ça. Et puis, lors de la convocation pour les parents d'élèves, il nous a avoué que lui, il était au courant de ça depuis janvier et qu'il nous avait laissé comme ça, depuis janvier. Du coup, nous, on est parti, on a porté plainte, on a parlé de notre problème à la mairie. Ils nous ont dit que ça va servir à rien, qu'on est en train de perdre notre temps, qu'on est des enfants, qu'on ne doit pas créer le boucan comme ça et qu'on devrait juste tout laisser couler. Eux, ils vont essayer de rencontrer le ministre et leur exposer notre problème. Mais depuis lors, on attend, ils n'ont rien dit. Donc, c'est pour ça qu'on est venu ici, pour vous parler de notre problème, Parce que nous, on s'est rendu compte qu'à l'école, ce n'est pas seulement un problème de bac et tout. À l'école, y a absolument tout. y a, la drogue, il y a délinquance, il y a tout. Plusieurs fois, on a été exposé à des situations dangereuses de gens qui étaient complètement sous, en train de se balader comme ça. Et vu que l'école maintenant, ce n'est pas une bonne école, soit disant qu'ils sont certifiés, on a trouvé ça dangereux de laisser d'autres personnes aller Merci beaucoup, euh, mademoiselle Sabali. Nous allons donner la parole à mademoiselle Khadjata Sow. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Khadjata Sow. Je suis euh, élève à Lucille Leclerc. Je vais de parler un peu le Wolof puisque mes deux camarades ont commencé avec le français. Donc, euh, pour... Euh, pour résumer leen tuuti li xew foog naa ne euh, monsieur Guy Marius Sagna ak sama élève ak sama camarade yi expliqué nañ leen bu baax euh, naka la problème bi demee du coup tey ay élèves lañu ci institution Lucie Leclerc ñu ñëw biñ ñëwee ñu fay suñu inscription fay suñu mensualité ñu fay lépp ba. ñu laaj ñu ay frais de dossier même même visite médicale sax école bi fu ñu ko fay loolu loo xam ne école bi moo ko waroon jël en charge même visite médicale ñu ñëpp dañ koo fay loo xam ne du yoon ñu fay loo ñu médical fay fayloo ñu épreuve fay loo ñu inscription fayloo ñu mensualité loo ñu dossier lekk nañ xaalis bu dul jeex si ñun ñu wax ñaata la ñu lekk si ñun du coup euh, biñ demee comme sama camarade bi ni mu ko waxee biñ demee ba ba ci fin de mois de mai nit ñi di recevoir seen ay jury ñi di recevoir seen ay euh, numéro et ñu recevoir mu suñu surveillant ñëw ba ci classe bi di wax nit ñi seen jury ak seen table pour nit ñi marqué ñu ñëw ba ci xaajata ñu ne ñëw ba ci xaajata ñu ne ko yow définir sa jury ñu ñëw ba ci rugi ñu ne ko définir guñu sa jury ñeneen ak ñeneen neuf lañu léegi bi ñu demee ba quelques jours après ñu trouvé loolu bizarre nag yu dañoo waroon def euh, brevet sportif. ñu ne Dieng naka la ñuy defee brevet te xamaguñu suñu ay numéros xamaguñu suñu numéro te xamaguñu dara mun nañu t'inquiète pas Khadija ça va ça va ça va se régler sachant très bien moom xam na ne depuis janvier kon qu'on va pas passer le bac mu bàyyi ñuy fay di ñëw mu ne ma non Khadija vous allez passer le bac c'est juste un problème technique parce que des fois waa UCAD dañuy jël temps pour envoyer message yi ñun on on on lui fait confiance suñu surveillant bu ñu ñëwee suñu message na ñëw on va croire dañuy xaar nekkete. daf ñu doon fenn waxuñu dëgg léegi euh, quelques jours après mun nañ mu woo ñu mun daf ñu convoqué suñu parents ñu ne ko Dieng lan nga war a mën a wax suñu parents loo xam ne mënoo ñu ko wax ñu ñuy concerné yi parce que ñun ñoo ñun ñooy def bac et tout mu ne ma non c'est très délicat il faut ngeen woo seen ay parents pour affaire après ki déposé dossier yi muy tudd monsieur Diagne benn prof la ci école bi ñu dem ci monsieur Diagne ñu laaj ñu ne ko lan mooy problème bi mu ne soit office du bac ñaari problème la soit problème de timbre wala problème de extrait de naissance. ma ne ko man personnellement xaajata mosuma am problème papier te aw ma problème timbre te joxe naa sama xaalis ba mu mat ñu ne ma yow xaajata amoo benn problème Dieng dafa lekk sa xaalis tout simplement mu wax ko ñeneen ak ñeneen ñeneen ñeneen donc ce qui veut dire que école dañoo lekk suñu xaalis directeur bi samay camarades waxuñu ci lu bari mais directeur bi il était au xam na bu baax li xew ci école bi xam na ne école am jubut xam na ne euh, on n'allait pas faire le xam li xew ci école bi yëpp tout ce qui se l'école moom xam na ko Euh, école la boo xam ne man bi ma dalee jàng ba tey mosuma gis école bu mel nii école bi am na drogue école bi am na délinquance école bi am na violence ku ko neex dugg ku ko neex génn des fois am na ñaari élèves yu nekk suñu classe ñoom ñoo gën a drogué ci ci école bi dañuy ñëw dugg drogué ba ne taj naan ba màndi dugg ci classe bi di mieux daal euh, léegi benn jour mu ñëw yor benn bouteille Sprite def ci ay liquide ñëw naan ba maandi dugg ci classe bi jàppante ak prof AG bi ba naroon xeex ak moom loolu foog naa ne waa classe bi yépp ak prof bi mën nañu ko témoigner ñu ñëw mu ñëw bëgg xeex ak prof parce que jour dafa mandi woon et tout mu ñëw daal ñun ñemewuñ ko ndaxte bu nekk bu nekkee ci classe bi ak ñun sax duñu duñu mën a concentré wu tellement il est il est il est violent tellement on n'est pas à l'aise il est avec son frère les deux ils sont pareils léegi euh, pour revenir un peu si monsieur Dieng Euh, ak école bi ñun déjà ñun xam nañ ne du ñu bakk ça c'est clair mais li ñu bëgg message bi ñu bëgg faire passer mooy génération future bii di ñëw suñu ginnaaw ce qui veut dire ñu nekk seconde première wala troisième et cetera ñooñu lañ bëgg euh, protéger en quelque sorte parce que Dieng def na ko yeneen année yi def na ko ren te sûrement dina ko def déwén bu dee génnewuñu ko li ñu ñaan juste c'est de relier l'information histoire que génération bii di ñëw. du ñu am même problème que ñun na te déjà ils nous ont fait perdre une année une année de salaire une année mënuñu ñu ko fay du coup ñun lépp lu ñu bëgg daal mooy génération bii di ñëw après ñu ñu mën a euh, bañ a kii et déjà école bi en plus de ça ut nañ leen lu ne par la gentillesse par la violence des fois utee nañ leen lu ne pour juste ñu réagir ba daf naan la waaw waaw mais du mës réagir léegi terminal ñëw terminal ñëw ñii mu ñu tànn ñii pour mu déposer ñi ñii déposer luñ leen déjà surveillant bi mënul sax manipuler ordinateur ndax benn professeur la stage pour mu déposer affaire yi professeur bi dem na ñi ñu nañ ko ba mu affirmer que ni dafa jël suñuy dossier tegee ko nee parce que soi-disant que ni du risqué jël ay dossiers yom te bu ko dugalee ci clé bi waa école ba yëpp kenn du def bac kenn xamul lu mu wax noonu ba toog léegi après bi ñu nekkee tamit di dalaale ci surveillant bi à chaque fois kii bu la waxee lii kii lii la lay wax kee lee la lay wax kee lee la lay wax parent yi da leen di woo parfois di jaxase doom ak élève nga war a nekk sa parent di la kii ak yooyu noonu loo xamante ni normalul école ba lu nekk am na fa lu waay neex def n'importe quoi daal ñu doon ñëwoon fii nii tey pour ñëpp jot si benn parent bu xalaat inscrire doomam si école boobu noonu ñu lay wax ni école boobu noonu nekkul école bi gën ndax boo fa yóbbuwee sa doom pour ñu jàngal ko xam-xam contraire ba la fay jëlee su amul yenn mentalité yi nii pour yóbbu ko si yoon boo xamante ne nii mooy loolu dafay yomb torop ñu ngi leen di sant nag di leen gërëm si la fait que ngeen déglu ñu. jërëjëf euh, Adja Mati mbokk yi ñun ñoo ko déggandoo je crois que ku déglu suñuy doom yi ku déglu suñuy jarbaat yi ku déglu suñuy rakk yi xam ne Sénégal mu ngi soppeeku xam ne xale nekkatul xale xam ne conscience yeeg ak mentalité yi mu ngi jëm kanam ndaxte comme ni ma ko doon waxee sànq. bëri na Sénégal ñoo xam ne mat nañ bàyyi wala ndey wala maam xale yi ñu leen di noot ñu ne patt fu ñu leen di nootee ñu leen di seeñu ñu ne patt ci lañ leen di seeñoo may dellu si ci noonu wax sànq ñun dañoo am mbégte tey toog fii seen wet ñoom am fa taxawaayu waajur am fa taxawaayu nijaay am fi taxawaayu mag waaye am fi tamit taxawaayu représentant du peuple sénégalais am fi taxawaayu élu national boo xam ne bokk na ci li mu war a def sàmm ak ak yelleefu ñiy nekk Sénégal or ak ak yelleef bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee tey mooy le droit à l'éducation le droit à l'éducation bi nga xam ne article huit ak article vingt et un de la constitution mu ngi ciy wax bi nga xam ne article vingt six déclaration universelle des droits de l'homme bu 1948 euh, mu ngi ciy wax moo tax ñuy interpeller état du Sénégal wax naa ko sànq dama koy waxaat interpeller état du Sénégal mooy école yu mel nii école institut Lucie Leclerc waruñu ubbi waruñu def lu ñuy def ñaata yeneen école yu mel ni école institut Lucie Leclerc ñooy def yëfu Samba Boy yii di exploiter di jëriñoo di noot ay xale di noot seen institut euh, euh, ay ay élèves mais ñu ngi interpeller gouvernement du Sénégal tamit ci ne comme am na session de remplacement ndax cas yu mel nii. gouvernement du Sénégal warul xool naka lay jàppale élèves yi pour ñu mun def session de remplacement ndaxte lu tax defuñu bac du ñoom seen coobare du ñoom seen këyit moo matul du ñoom seen xaalis moo matul donc gouvernement du Sénégal lu ci mën war na ko mën a def ngir cas yu mel nii ñu bañ a perdre seen année scolaire muy juróom-ñeenti weer xaw ma fukki weer ñuy interpeller ministre de l'éducation nationale lu mu mun ci cas yii ci élèves yii lu mu ci mun na ko def pour session de remplacement dégg ngeen leen nee nañ amoon na jamono joo xam ne seen waa école ñi moom école bi ñu leen doon gëmloo ne dinañ def session de remplacement bu dee juumuma waxoon nañ leen sax ne dinañ leen utal euh, faux certificats médicaux pour wan leen ni ñu dinañ leen utal certificat médical yu teguwul ci yoon pour jéem a firndeel ne dañoo feebar moo tax defuñu bakk fekk na ñoom xam nañ ne waaw mais boo ma utalee certificat médical te sama mille 11500 da nga ko randal sama 11500 da nga ko toje sama 11500 da nga ko sàcc boo mu utalee certificat médical tamit pour wax ne damaa feebar moo tax defuma bakk mois de juillet lu muy jëriñ comme am na session de remplacement ndax ministre de l'éducation nationale ndax gouvernement du Sénégal amul lu mu war a mun def ak kaa yu mel nii nga xam ne dañ leen nax muy benn ñaareel bi seet seetantal école yu mel nii école institut Lucie Leclerc waaw yokk policier baax na yokk limu gendarme baax na dem jënd ay ngànnaay yow xaw ma dugal pale présidentiel baax na jënd ay ngànnaay xaw ma yóbbu xaw ma ministère de l'environnement baax na mais yokkal fonctionnaire yi nga xam ne ñooy dugg ci école yi. ñooy xuus ci école yi xool li xew ci école yi xool drogue bi nekk ci école bi xool délinquance bi nekk ci école bi xool classe yi nga xam ne da dem jàngi dugg classe doo mun suivre ndax yaa ngi bokk classe ak ay drogué dem école fay sa juróom-ñeenti weer ndekete depuis mois de janvier yow doo def bac. te bu ñu la ko waxoon xëy na nga taxawal sa yi waaw dootoo fayati depuis mois de janvier nga dem defi leneen justice bi tamit xanaa justice bi justice su sàcckat yi la xanaa justice bi justice su borom école borom doole yii di sàcc yii di noot élèves yi la fii nag seen kër la ici c'est votre maison ceux qui ont ñi nga xam ne dañoo wax ne ay xale ngeen coow li du mujj fenn coow laa ngay soog a démarré démarré gul sax ñu ngi dénoncé naka lañ ay naka la ay xale amee seen jafe-jafe au nga wax dëgg nga naan ay xale ngeen coow li du mujj fenn coow li commencé gul lii lancement dong la lii bande annonce dong la lii bu doyulee on marche. une manifestation devant l'école Institut Sainte-Lucie. Institut Lucie Leclerc. Je ne sais même pas pourquoi je dis Sainte-Lucie depuis tout Alors que Lucie boobu moom du sant Lucie bii ñuy wax du sant xaw ma lu tax ma naan Sainte-Lucie depuis cinq si ça en vaut la peine ça dépend que de vous si ça en la peine on fera une manifestation devant l'école Institut Lucie Leclerc des Almadies si ça en vaut la peine on ira devant l'IA de Dakar pour interpeller l'IA de Dakar xawma IF de Dakar ak ñoom seen parce que lii warul continuer l'État du Sénégal doit s'emparer de ce dossier que justice soit rendue à ces élèves dont le droit à l'éducation a été piétiné que justice soit rendue à ces élèves que des dommages et des intérêts leur soient payés que justice soit rendue à ces élèves pour que plus jamais ça suñu kàddu tamit mooy comme ñoom nuñ ko waxee quelle responsabilité élèves yi ay élèves yu responsable lañu dégg ngeen lu ñu wax ñun suñuy rakk ñii nekk première ñii nekk seconde am na sax lu ñu fàtte nee nañ je crois am na am na benn élève troisième bu dund la même chose que vous élève troisième boo xam ne moom itam dañoo randal xaalisam kon moom du def defet quelle responsabilité que justice soit rendue que l'État du Sénégal puisse en même temps que nos enfants dire plus jamais ça à l'école Lucie l'institut Lucie Leclerc plus jamais ça dans aucune école du Sénégal waaye tamit que l'État du Sénégal garantisse la sécurité à nos enfants dans les écoles ñu jël li nga xam ne ginnaaw yàlla ak yonent bi moo ëpp solo pour ñun ci suñu dund maanaam suñuy doom ñu bàyyi leen ñu dem école ndekete école bu ñuy dem drogue ma nga fa délinquance ma nga fa dugg na fi génn fii waaw ah, mais yokk leen li mu fonctionnaire yuy dem ci école yi bu ngeen yokkee li mu policiers yi d'accord yokk leen li mu agent yiy dem ci école yi yi protéger di aar suñu doom li nga xam ne mu moom moom sax lu ñu gën a fulal ñun suñu bàkkan ndax lu ñuy def yëpp ginnaaw yàlla ak yonante bi ñoomal donc lii mooy suñu taxawaay tey conférence de presse la woon bu doyulee dinañ ci waxtaan ak ñoom dinañ def manifestation buntu école institut Lucie Leclerc euh, fan yii di ñëw wala waxtu yii di ñëw naa interpeller gouvernement du Sénégal à travers une question écrite affaire bi du yem fii rek dinañ xeex ci mbedd bi ngir le respect des droits de l'éducation de nos enfants waaye dinañ dem assemblée nationale interpeller gouvernement bi ne ko yow gouvernement du Sénégal ana loo doon xoolee ba kaa yi dal suñuy doom yi nekk école institut Leclerc ana foo nekkoon bi ñuy noot di sàcc di menacer di maltraiter c'est de la maltraitance suñuy doom yi nga xam ne dañ leen yóbbu école ana foo nekkoon. nga sëgg rek ci aji saar doo wax ci rugi doo wax ci aji doo wax ci xarjata doo wax ci saabali lii mooy suñu taxawaay kon fan yi di ñëw waxtu yi di ñëw dinañ leen wax suñu plan d'action bi nga xam ne moom lañ nar a déroulé ngir liñ leen sàcc ñu delloo leen ko li ñu jël ci ñoom dommage et intérêt ñu fay leen ko justice def liggéeyam amul aji am ndey ak ajaa amul ndey waaw a aji mati Touré amul aji saar am ndey aji mati Touré amul ndey amul aji am ndey yi amul ndey amul aji am ndey xarjata amul ndey amul aji am ndey saabali amul ndey déedéet donc euh, ñu ngi leen di gërëm di leen di sant